félicité ci mobilisation bi nga xamante ni def nañ ko ngir mën a waxtaan ci suñu biir ñun ñi nga xamante ni ay candidat lañu ci élection yi di ñëw muy mairie de Mbacké li waral ndajam waxtaan wi it solo si dafa amal Sénégal yëpp njariñ rawatina commune bu Mbacké ndax dañoo constaté ci listu benn bokk yaakaar ay manquement yoo xamante ni dal na suñu ay doomu dëkk te bi mu leen dalee dañu rejeté seen liste wante bi mu dalee benn bokk yaakaar rejeté wuñu liste bi bañ publier ñu doot ko constaté doot ko gis loolu nag doon loo xamante ni lu ñu war a saafara la lu ñu war a xeex la lu ñu war a combattre la pour nekk benn jurisprudence boo xam ne ëllëg si biir fu mu amati Sénégal ñu mën koo xool li koy saafara ndax xam nañu ne constitution bu Sénégal muy charte bi nga xamante ni moo ëmb lépp luy doxalinu réew mi dafa ubbi benn pàcc boo xam ne code électoral code électoral boobu moom mooy organiser mboolem élection boo xamante ni am na ci Sénégal ci fànn yëpp muy présidentielle muy législative muy municipal muy conseil économique social environnemental muy au conseil des collectivités territoriales lu ci mënti doon rek code bi organisé na ko noo xamante ni kenn du war a mën a jàdd yoon mbaa ku jàdd yoon yoon dal sa kaw li ñuy constaté nag mooy liste Benno Bokk Yaakaar fii ci commune Mbacké dañoo gis ne dañoo respecté wul ci ñàkk respecté parité boobu tax na ñu ñaari jigéen toftal leen te code bi dafa wax ci L266 code bu bees bi ne booy defar liste bi nga xamante ni mooy liste conseil yi moo xam muy majoritaire wala proportionnel dañoo war a respecter lii pare ci liste majoritaire bi dañuy wax góor jigéen walla jigéen góor ak cyprien yi kon bu fekkente ni am na ñaari jigéen yu ñu tegale ba la commission bi nga xamante ni préfet bi moo ko jiite bàyyi ci xel wala bàyyi nañ ko mu jàll ba publication bi agsi te it suñu yeneen doomi dëkk doo ñaar ñoo xamante ni rejeté nañ seen liste même manquement am ci loolu dafa metti ñu engagé wu nag ñu ñëpp doon benn bloc ànd ak waa Mbàkke gépp jóg xeex loolu ndax injustice la inéquité te loolu sart yoonu réew mi diglewu article bi dafa gën a leeral ne composition alternativement mooy foo tege jigéen rek da nga wax teg góor foo tege góor it da nga wax teg jigéen donc la répétition est pédagogique pour mu gën a leer bopp nit li ñu yoon may nag danañ ko def ndax bataay bi ñaari bataay la benn bi c'est une bataille juridique tàmbali nañ ko jël nañ benn avocat danañ jël yeneen avocat pour créer un pool boo xamante ni danañu défendre li nga xamante ni mooy cause bi nga xam moom la ñuy réclamer beneen bi ci des bataille politique ndax nit wala ay nit yu mënta taxawal list boo bëggee laaj dëkk wax dëgg yàlla xam na ngay nax sa bopp kon nag li ñu war tàmbali nañ ko informé ñi ñu war a informé wax ak ñi ñu war a waxal lu mu laaj rek danañu ko def pour que justice soit rendue à la population de Mbacké xam nga constitution bi nga xamante ni moo moo jur code électoral ñëpp ci bokk ya nous sommes dans une république démocratique réew moomu charte yi moo tiim ñëpp amul kenn ku nekk ci kaw charte réew mi magistrat yi nga xamante ni ñoom ñooy tranché ay nit lañ yoo xamante ni far faruñu fenn réew mi lañu faral ma bëggoon rek ngeen bàyyi xel ci ñaari mbir buñ ne état mooy administration ak gouvernement te gouvernement lu tuuti la ci biir administration la ay quelques nit kon administration boobu nga xamante ni ñoom ñoo taawu réew mi nga xamante ni c'est les institutions nit ñi nag dañuy dem mais institutions yi dafiy des des goomu fi des nag moo tax ñiñ ko dénk ñu koy gàddu ñu doon ay nit ñoo xam dañoo waat xam dañuy dugg seen bàmmeel wala wéet ak seen borom bàmmeel il applique le droit sur la situation